mbokki euh, téléspectateurs yi mbokki internet yi ñuy seetaan fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi di Sénégal ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu euh, di leen ziyaara di leen balwaq te di leen balaq di ñaan yàlla suñu borom mu boole ñuy jégal ñu jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général de Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di ko ñaanal mbooleem kilifa yi dina yëpp mbokk yi di leen ci bis bu mag bi nga xam ne moom lañ génn muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bisu màggal Touba di bis bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba moo santaane képp koo xam ne mbégam mooy sa mbégte bis bi su del seetee ci àddina nañ ko ci santale yàlla loolee nag mu mel ni amal nañ ko ci atum 2023 bi mu dëppoo nag le 4 septembre doon fukki fan ak juróom-ñett ci safar 1445 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ñu màggal ko santaat bu baax a baax yàlla suñu borom mi ñu may ba dundal ko xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane màggal Touba événement la boo xamante ni dañ koy dundal avant pendant et après muy événement bu mag a mag boo xamante ni comité d'organisation bu màggal bu Touba ci njiital sëriñ Bassirou Mbacké moom sëriñ Abdou Khadir ak mboolem commission yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bu ni mel dañ ci def liggéey yu am solo ba tax na ginnaaw màggal gi ñu fas yéene amal jotaay boo xamante ni dañ koy seq ak sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Cheikh Gaïndé mi nga xam ne moo jiitee commission culture ak communication ci comité d'organisation bu Grand Magal bu Touba ngir ñëwaat nataat li nga xam ne moom lañ def ci Magal Touba édition 2023 bi ci fànn yu wuute sëriñ bi ñu ngi lay euh, nuyu di la ziyaara di la masaw coono ndax màggal gi li ñu door jugee rek gis nañ coono yu mag a mag yi nga xam ne dañ ngeen ko ci lépp rek ngir wasaare njàngalem Cheikhul Khadim waaye taxawu ñi nga xam ne ñoom lañ war a euh, jox li nga xam ne moo gën ngir ñu mën a dundal màggal gi Touba Mbacké rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy gan ñi. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakatuhu <clears throat> ñu ngi leen di di fay di am mbégte ci uh, ànd ak yéen ngir dikk ci xayma li nga xam ne moom lañ jot liggéey ci màggal gi. di ci comité bi liggéey ak li nga xamante ne bii moom la màgg gi làmb woon lépp ndax màggal gi li nga wax léegi dëgg la màggal gi dafa rëy mm, rëy na rëyaay boo xamante ne bii. Euh, foog naa ne waxtu nekk dañ ko war di gën di saytu di ko gën di xayma ngir xool naka lañ ci gën a mën a euh, jariñoo ndax njariñul kese la moom la feese namm biir ak biti euh, kon aussi ginnaaw bu ñu leen sante nag yéen ci seen taxawaay bu bu rafet muy mbooleem presse bi yëpp ndax yëf yi ni niñ ko jotlee ren xam naa ne du ma ne mus am de waaye ren moom ñëpp nangu nañ ne jot na ci ci anam goo xam ne anam gu gu sëkk la di sant itam ki nga xam ne mooy doon liggéeyloo muy Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne moom mooy sëñ tey jii waaye nag di sant surtout nag kii di Serigne Bassirou monsieur Abdou Khadir mi nga xamante ni moom moo jiite comité d'organisation bi te bépp ndam bu ci am rek gannaaw yàlla jëmm ma tax ndax moom moo ci taxa taxaay boo xamante ne bii kenn ku nekk loo woo rek waxtu wu nekk na nga ko aajowoo noonu la ko joxe ba tax ba commission yëpp liggéey liggéey boo xam liggéey bu rafet la ci coordination sëñ sëñ Ousmane kon ñoom ñëpp ñoo mat jaajëfal ñoom ñëpp ñoo mat ñoo mat a sant. sëriñ bi ku ne Magal Touba ne euh, wàllum culture muy euh, li nga xam ne dafa jëm ci euh, li ñu ko doon waxee ci jamono weesu ci bernde yi nga xam ne moom lañuy baaxee taalibe yi muy xéewal yi yi nga xam ne ñi sant si Lo moom la ñuy def waaye bernde ru yi da ciy am solo. loolu ban liggéey la ci commission culture bi def ren ji ci màggal gi liñ ciy jiital rek mooy euh, gis nañ Cheikh Mamadou Mountakha bi ñu defee déclaration màggal gi ci le premier safar santaal ne woon na njàngal alxuraan gi te jiitaloon ko ci liggéey boobu ndax loolee wéyloon nañ ko ba ci màggal gi ak lan lañ ci jotee liggéey ci wàllum njàng alxuraan googu. waaw xam nga benn rôle yooyu nga wax daa nekk li nga xam ne mooy li ci ëpp solo hmm. euh, beneen berne beneen berne bi sax léegi yaatu na yaatoo boo xamante ne bii daanaka bis bu set ci at mi ñëpp dañuy màggal seen i kër. donc xewli si moom noonu la noonu la toll. waaye bis bu toll noonu boo ko boo ko wootee ñu ñëw sa ay nawle yëpp dikk. ci biir réew mi ak ci bitim réew. Euh, kenn ku ne aussi gis ne sëriñ bu mag bi ni euh, nga xam ne noonu la taxawaay bi mu am ci xam-xam nga xam ne man nga ne li mu bind. bu fekkee am na ko bind bëriwul. wala boobu man xawma man xawma ko bind loo xam ne toll na li sëñ bi bind. Euh, ku mel noon nag boo koy boo koy liggéeyal nga xam ne bañ koo bañ koo bañ ko jiyee ne ko da ngay jeexaat dama xoon ñëpp xam nañ ko damay jeexaat waaye nag ci ragal yàlla ak xam-xam kon foog naa ne foofu mooy fa ñu war a insisté ndax loolu mooy li ñuy mooy li jariñ euh, ba tax na commité bi jël wàllu xam-xam bi jiital ko d'abord ngir nit ñi jàng ci ngir euh, tasaare li nga xam ne mooy njàngale Serigne Touba ci biir réew mi ak ci bitim réew ak nag ci niti xam-xam yi nga xamante ni ñoom lañ invité ñuy dikk di ko di ko fekke si ñu gis ne màggal gi dafa xat ci jëmmi bis màggal gi ak sax fan ñu ko xaw a jiitu tuuti ñu ne kon loolu dañ koy tàmbali lu yàgg balaa màggal gi boo seetloo bu bu weeru teroo rek ci fan njëkkee ci dañuy def conférence yi nga ñu ngi def ci penc yi ak rawatou Rayaahin ko def ci penc yi yooyu ren ji jot nañ ko jot nañ ko def boo seetloo itam bu weeru safar teroo rek ci la mboolem jumtukaay yëpp muy télévision muy sit muy rajo ñëpp ci la ñu commencé teg ay conférence yoo xamante ne bi ak ay waxtaan yoo xam ne mi ngi jëm ci sëriñ bi jëm ci màggal gi jëm ci lislaam rek kon yooyu dañ koy enregistré loo xam ne jiitu na màggal gi lu yàgg yooyu aussi liñ ci def euh, bari na ba na lool lépp ñu defe ko foofu ci Touba dajale borom xam-xam yi képp ku dikk ne damaa bëgg lu mu waajale màggal ci wàllu xam-xam ñu ci tem sàngam laa soxla ñu wutal la ñoo xam ne mën na nañoo waxtaan ci tem boobu nga seq ak ñoom jataay gis nga itam ci biir màggal gi ni nga xam ne noonu lañ doon defee ci conférence yi nga xam ne ci buñ ne suba la màggal ak ci bisu màggal gi loolu aussi bokkut ak plateau yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci kër sëñ Tuubaa yi aussi conférence yi ne ñu ngi ko doon def ca fa naaree nekkoon ca ca héliport kon ay jataay xam-xam yu bëree bari la même cérémonie officielle bi dañ ko tuddee cérémonie officielle waaye boo dégloo discours sëñ bas da ngay xam ne am njàngaleem kese la daanaka sax amul benn partie boo xam ne na wàllu adduna lépp njàngalem Sëriñ Tuubaa la kon day mel ni màggal gi ca wàccaay wa ca tàmbali ba banam jeexe lépp xam-xam la loolu nag at yëpp noonu lañ koy doxale te foog naa am na njariñ loo xam ne indi na ko am na loo xam ne aussi yokk na ko ci màggal ndax képp koo xam ne màggal si nga rawatina sax ñi nga xam ne ña nga toog seen i kër ndax dañuy jot ay euh, téléphones yoo xam ne bitim réew lay jóge fi doon ñooñ ñooy ñi gën a jariñu ci màggal gi ndax ñoom dañuy dañuy féex am jot toog mën a seetaan yëpp dañuy bàggante liñ ci xam sax ñun ñu ne ci biir liggéey bi eh, daanaka duñ ko ci xam nga xam ne kon ci dëgg-dëgg njëriñ lépp njëriñ kese la loolu aussi ñu ci sant nag waa Rawdu Rayaahiin ci seen taxaay boo xam ne taxaay bu bu rafet la ak seen disponibilité ñu ci sonn coono yoo xam ne ñoom fi mu nii bu màggat jàllee rek tàmm nañoo waxtaane déwén yan thème la yan thème la ñuy euh, la ñuy indi ñan ñoo koy def naka lañ koy defee fan lañ koy defee fi mu doon ñoom bu ñu nopp rek commencé waat seen ay réunion ak mbooleem nag borom xam-xam yëpp ñi nga xam ne aussi bokkuñ ci raw du te itam di participer ci liggéey boobu ci anam goo xam ne anam gu mucc ayib anam gu rafet la ci ci ak sellal goo xam ne gu gu mat sëkk la. Hmm. bu dee lu jëm ci wàllu njàngu alxuraan gi mel ni màggal gi tamit dañ ko ci dundal bu baax a baax. bu dee njàngu alxuraan mi loolu. boo seetloo bañ ko tàmbali léegi ëpp na fukki at 2011 lañ ko tàmbali woon ñu ngi koy defee ci barabu jullikaay bi ci wetu armeel yi waaye loolu dañ ko fay tëjee premier safar ci la daara yëpp di jàng ca seeni biir yi daara buñ dee ne magal des ñetti fan ñaari fan ñu jël ñu jël leen nag dajale leen ci penc mi ñu fay ñu fay jàng vingt quatre heures sur vingt quatre yëmul jàng alxuraan dañuy jàngale aussi ay ay xasida bu ñu jàng alxuraan mi sëñ Xaadi euh, Jaxate moo ko jiite bu ñu jàngum xasida mi mu Musaa Mbàkke moo ko bu ñu demee ba mu ñu subalu màggal ci ginnaaw tisbaar diggante tisbaar ak takku saan ci la sëriñ Bas di ñëw saafonte ak ñoom yeewi leen muy nekk aussi jataay boo xam ne jataay bu bu am solo la ndax ci biir jataay boobu euh, ci la ñuy joxe Eh, ijaasa yi nga xamante ne bii ñu mokk alxuraan foog naa ne ren lañ fa joxe ëpp na ci su ma foog naa mën na ñaari téeméer te loolu la lim bu ndaw la rek ci daara yi nga xam ne ci ci Tuubaa ci jataay bi aussi lu yéen am fa ci ñaari minute ca la ñu woo dong yëpp ñu wàcc kaamil bi ci ñaari minute ñaari minute ndax kenn ku nekk daa am lu la sas ñu jàngandoo ko xam nga kon bu ñëpp noppee rek kaamil bi jeex na noonu lañ ko organisé man loolu mosuma ko gis mosuma ko gis même sëñ Bass wax ma ne lii mosuma ko teg bët deux minutes ci ko def kenn kon ni laa sas dara da ngay tàmbali fii yem fi tàmbali yem fi ñoom ñëpp ñu ñëw ku ne jàngale la sas kaamil bi jeex tàkk ci maanaam ci gàttal donc la dañuy séddoo kaamil bi ñëw ci ñaari mil kenn ku ne tari leen la sédd kon kaamil bi jeex na loolu bindoon nañ fi kaamil ci benn bis jëbbal ko sëñ bi foog naa ca kalogu 2014 ba la woon bii yoon nañ nii lañ ko defale loolu lépp di teg tegtale euh, moom gi nga xam ne suñ tubaab moom na nga alxuraan <laughs> ak li ko ci yàlla may jataay boobu si di jataay boo xam ne bu bu yitteel sëñ bi la ndax day mel ne mooy mooy lewetal lépp mooy lewetal lépp nga xam ne kon màggal gi tey euh, nit ngi sax duñ seet loolu feet la bernde la waaye buñ ne bernde danga koy da nga ci am dig-dig bu yaatu bernde du du lekk ak naan rek du du loolu dong ruuy ci la bokk ah, kon loolu aussi ci bernde bi lay dugg ci bernde bi la dugg <laughs> ba léegi ci euh, wàll googu muy bernde yi euh, bernde ruuy yaakaar naa njàngu xasida gi yëkkati ci lay bokk ndax gis nañ ne euh, màggal gi tamit ñu ci bëree bëri moo xam jànkati aw yi la moo xam ñii ñi ñii ñi rajas la moo xam ñii kuréel la nga xam ne dañuy nekk ci ci ci li wër jumaa ji di ko amal loolee tamit dafa mel dundal nañ ko ci màggal gi bu baax a baax. même loolu day feeñ programme télé yi. Hmm. te boo xoolee plateau bu télévision def bu tegee koo xam ne day def waxtaan mais gis mu jàkkaarloo koo xam ne day yëkkati loolu télévision yëpp dañ koy def foofu ma la wax aussi ne fa la ñuy tëjee njàng mi ci sëñ Moussa bu sëñ Mahmadan jiite ko. foofu itam dañ fay waxtu bu nekk kuréel ya ñoom itam ña ngay ña ngay jàng. même gis nga guddik màggal gi waa isbu yi ci bis bi ñoom itam dañuy fanaane jàng ba ba fajar eh, keroog ba ñu jógee ca ca gan ña ay une heure deux heures du matin la fa bas dem toog fa ñëw fekk tant bi fees dell ñu ñuy jàng rek kuréel bu jàng ba noppi rek ñeneen di ko toog nga xam ne kon màggal gi dafa ci fànn googu dafa dafa matale te loolu jàpp naa ne mooy li nga xam ne mooy li gënal mooy li gënal sëriñ bi mooy di gënal di ko gën a yitteel te léegi nit ñi suñu borom xettal na leen ci boo aussi mooy liñ gën a fonk ci ci màggal gi. Hmm. Euh, ñu delluwaat ginnaaw tuuti ci euh, conférence yi nga xam ne moom nga doon leeral sànq mi waxtaan yu am solo yooyu ndax dañuy gis ne euh, dafay am thème yu am solo yoo xam ne moom lañ ciy développé ndax ginnaaw waxtaan yi thème yooyu dinañ ko jël di ko xaatim def kay téere yoo xam ne peut-être universitaires yi ci mën a jariñu ñi nga xam dañuy gëstu daañu ci mën a jariñu. waaw boo seetloo yoonu murit ci boppam laa lay wax ba 2010 jàpp 2011 li ñu doon bind ci ay téere bariwutoon bokkutoon ci suñu suñu aada boo seetloo delluwaay bi sëñ Bassirou la doon nekk wala sëñ man Lamine Diop Dagana bari wutoon lool lool lool waaye day mel ne bi ñu commencé yii eh, li nga xam ne moo fi génn ci ay téere kenn xamul mu toll eh, ñun colloque bu ñu def 2011 ba léegi bu ñu def rek dañ koy tënk génn ci téere waa raw yi at mun mënuñu génn ay téere parce que ñoom itam waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy def dañ koy boole di ko dajale di ko di ko móol di ko def ay téere luñ ci yem ci arab nañ koy génne ndax waxtaan yëpp ci arab la waaye buñ noppee danañ fexe ba traduire ko ci français fexe ba traduire ko ci ci anglais mu liggéey boo xam liggéey bu rafet la loolu aussi di encourager xale yi ñu gën a fonk xam-xam damaa dem euh, nabax ya ay 2012 2013. Mauritanie fekk benn xale bu bu dëkk Touba. ñuy waxtaan. bi ñuy waxtaan mu ne ma sëñ bi de yéen ma tax a ñëw fii ndax taxawaay bi ngeen am ci màggal gi moo tax ma laxas jàng si. kon loolu day am influence boo xam ne da koy da koy da koy da koy def ci ndaw ñi ndax ci kanam tuuti ku amul xam-xam dana jafe nga bokk ci ci yëf yi ndax xam-xam moo la ciy boole. xale nag loolu ñu ngi koy ñu ngi koy xam moo tax ñëpp fi toll nii ñuy dem di jàngi yaa ne kon day mel ne liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy def daa am da da dafa soppi environnement bi ba léegi nit ñi au lieu ñu ñuy jongante ci yenn yi ci oto yi rafet ak ay terrasse ak léegi nit ñi ci xam-xam lañ bëgg di jongante te loolu ci kanam tuuti dina dina fës loolu nag bu dee am ne xam-xam bi xam-xam bi dikk loolu mooy sabab bind téere yi eh, waxoon naa leen keroog suñu mu taxaw moom ko wax ci làmmiñam moo ne ma li nga xam ne am nañ ko ci pas ak li nga xam ne am nañ ko ci taxawaay bu ñu amee xam-xam rek kenn duñu attan boobu ci université bi lañ doon waxtaan kon loolu tey jii ñëpp xame nañ ko noonu moo tax téere yi moom bari na luñ ci def lu ci ëpp dañ koy tënk ba du ba réer bind ko ci ay téere mool ko tasaare ko jërëjëf jëf mbokk yi ñu leen fàttali ñu ngi ànd ak euh, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma di président commission culture ak communication bu comité d'organisation bu Grand Magal bu Touba ñuy amal waxtaan rek ci jëm ci xayma jëm ci euh, màggalu Touba édition 2023 bi sëriñ bi màggal gi fu ne la doomu aadama di bàyyeekoo di ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba muy ci biir Sénégal muy ci bitim réew ndax at mu jot ñu xayma limu taalibe yi nga xam ne ñoo ñëw ci dëkk bu bi ren tey ji ren bu ngeen defee ab xayma euh, lan la leen jox ci nombre de pèlerins yoo xamante ñëw nañ ci Touba. waaw xam nga loolu 2011 lañ commencé jàngat yu benn noonu parce que boobu dañ doon màggal rek am ginnaaw ba nag ñu ne loo xamante ne bii xayma woo ko ba xam naka la day saytu gi day jafe. dëgg la ndax boo xamul ñaata nit ñoo fi ñëw doo xam lan nga war a waajal ngir nit ñi buñ dikkee. seen nekkin am ay jàppandal boo xam màggal gi tam lan lay lan lay jur ci ci wàllu koom ak ci yan ci yan secteur lay lay gën a génn doo xam aussi naka ngay jariñoo ci wàllu zahir ci màggal gi ak ñi nga xam ne ñooy homme d'affaires yeeg ñi nga xamante ne bi aussi day yëngu ci wàllu koom ak ak li nga xam ne mooy mooy réew mi euh, ñu commencé woon ko defaatoon ko 2015 2016 ren yi itam ñu defaat xayma yi boobu Moubarack Lo moo ko defoon ren ji aussi moom lañ jëlaat mu def ko ci ñu gën a xereñ ci fànn googu ci Sénégal la bokk suñu borom may ko ci loolu aussi ñëpp nangul ko biñ ko bi mu ko defee moom dafa jël juróom benn bunt la jël juróom bunt juróom bunt la jël ci Touba yoo xam ne dañ fay jaar di fa di fa foog naa bi nga xam ne mooy ngaabu ci la bokk mi nga xam ne mooy euh, mooy péage bi ci la bokk ba ci Daaru Musi ci la bokk ba nga xam ne moo jógee côté penku ci la bokk noonu la ko def ba ba mat juróom bunt léegi bunt bu nekk mu teg fa ay enquêteur enquêteurs yoo xam ne vingt quatre heures sur vingt quatre dañ fay nekk bu kii ñëwee taxaw nangam waxtu day dem keneen ñëw wuutu ko soo defee képp kuy dugg si rek dañ lay conté moo xam oto la oto mag la oto bu ndaw la moo xam sareet la moo xam jakarta la képp ku dugg si rek dañuy compter euh, loolu biñ ko biñ ko defee ñu ngi ko def diggante ajjuma ji jiitu màggal gi def ko ci gaaw bi def ko ci dimanche ji def ko ci altine ji ba wàllu onze heures nga xam ne jàpp nañ di waxtu woowu ñu war a dugg si ñëpp euh, dugg si nañu nga xam ne kon defuñ ko sax une semaine à l'avance gis nga xam ne dugg nañu Touba ci dig-digal boobu man na cinq millions huit cent soixante quinze mille yoo xam ne day tegal. juróom millions yu teg. juróom nga juróom benn millions yu. manqué ci tuuti waaw. <laughs> waaw waaw daanaka ji waaw jege na ko waaw. Mm-hmm. Eh, loolu ñu jël ko méngale ko ak magal gi dama tolloon eh, juróom ñetti at ci ginnaaw ñu gis ne téeméer bu nekk yokk na ñeen fukk ak ñaar quarante deux pour cent de taux d' augmentation. ci juróom-ñetti at loolu di ñëw di firndeel taux de croissance bi am Touba ndax Touba rek mooy dëkk bi nga xamante ne bii boo ñëwee di jël croissance bi jege na vingt pour cent ci ni nga xam noonu lay yokkoo par par at hmm. nit ñi ni nga xam noonu lay dikki di dëkk si croissance démographique bi donc loolu di mbir moo xam ne mbir mu mbir mu yéeme la nga xam ne magal gi eh, ren jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko doon xaar te jaadu na ci wàllu ndox mi ci wàllu assainissement bi ci climat social bi nga xam ne mi ngi nekk ci réew mi ak coow yi nga xam ne moo fi moo fi xaw yëngutu yeeg yu mel noonu euh, nit ñi mabbu ñëpp wut si loolu day mbir moo xam ne mbir mu yéeme nga xam ne day mel ne Sëñ Touba ci ci jafe-jafe ci lay euh, ci lay wane boppam ci lay wane boppam loolu defuñ ko ngir di ko puukare woo déedéet passé nañu foofu ndax ndax ndax Sëñ Touba doon na tiitar suñ Tuubaa doone tiitar boo ko amee boo jëmee tiitaru da nga ñàkk xorom ndax munoo am tiitar bopp sëñ bi waaye dañoo am euh, obligation dañoo am warteefu xam li dugg Tuubaa nu mu ba bañ mën a xayma lañ leen fay indil ci ay jumtukaay naka la war a day buñ ko xamul dañuy kon continuer dem ay jafe-jafe bu ñëwee Tuubaa la fay dugg ci màggal jege na juróom benn million ngi nit kon dañuy taxaw wax état Sénégal ne ko am na benn bis am na ay bis goo xam ne juróom benn million dana ñëw Touba kon lépp loo fiy def na ko natt ci juróom benn million nit wala nga xam ne boo ko deful ñëpp danañ am problème ñun loolu mooy suñu devoir loolu mooy suñu warugar lii la ñu ko defee mais ñi nga xam ne ñoom ñu ko seqal bu ñu xamul ñu fi dugg nuñu ñu toll ñun suñu wàllu bopp bu ñu xamul ñu fi dugg nuñu ñu toll day gën di manqué di dem. ndax lépp loo xam ne xaymal nga ko Touba boo toogee diir bu gàtt Touba da koy weesu te jamono moo am foo xam ne fa la fa la toll euh, tollatuñ ci di di di lambatu ak ak ak dox dox gumba déedéet loolu jamono da ko weesu ndax science ci bopp moo ñu indil ay jumtukaay yoo xam ne mën nañoo xam lii dugg si Touba ñaata lañu xam aussi ñooñu lan la ñu war a aajowoo ci am ndox lan la war a aajowoo ci assainissement. la lañ war a ajowoo ci wàllu lekk lu ñu war a ajowoo ci kaaraange lu ñu war a ajowoo ci wàllu santé mais loolu boo amul xayma yi doo ko mën a génne kon xayma boobu defuñ ko ngir leeral li ñi waxoon ne màggal gi euh, ren euh, li ci teew ci doomu aadama daa bëriwut xam nga daa am ñoo xam ne xamuñu histoire am na ñoo xam ne jàpp nañu Sénégal démb la tàmbali dafa am dafa am ñoo xam ne parce que amuñu amuñu culture ubbi ko wuñu xamuñu lu bari malheureusement c'est comme ça loolu mënoo ci dara ba ñoom lépp loo xam ne dikk na rek dañ ko méngale ak tey mais ñun li ñuy def weesu suñu tey nee daal la fukki at ak ñaar ci ginnaaw def nañ xaye bu mel nii booba kenn waxu ci benn baat loolu moo lay xamal seen manque de culture bi nga xam ne ñoom moom la ñu nekk te ñu war a dem jàng ñu ubbi seen bopp yi xam ne nit ñi am na ñu boo xam ne agrégé bi am na ñoo xam ne dépassé nañu ko mënul nekk di liggéeyal Serigne tubaab di am yeneen considération yoo xam ñaa ngi koy xool doo ko sax bàyyi xel parce que loolu dëdul dara loolu dëdul dara kon ku ku jàpp ne am na leen tax ñu koy def kooku mooy ko xam da nga di 2011 la moo tax ñu koy def li ñuy def dañ ko teg ci ci xam-xam lañ ko teg teg ko ci une base scientifique bu leer nañ ñi moo wax la liñ ci jublu lan lañ ci jublu moo di ne wax ñu ngi ko seqal ne leen lii mënta ñàkk Touba lii moo tax ñu koy def buñ defoon xayma yi 2011 magal du nekk jour férié. kon xayma yi moo indi jour férié bi. moo ko indi ci lu wér wér man maa la ko wax. moo ko indi parce que xayma yi ci man la départ bañ ko def 2011 avant loolu at mu yàlla sàkk ay nit ñooy dem ci rajo yi dëkk ci suñ nopp yi màggal Tuubaa yàq la. ay nit ñoo ko daan wax ci rajo yi mën naan la diw ak diw ak diw chaque année daan ci rajo yi di ko wax. naa daa bari accident xar yiñ ci rey bëy ci rey nag yiñ ci rey lañ ciy dépensé yàq la nangam ak nangam te booba parce que ñooñu gis nañ rek ne ñi ngi ñi ngi lewatal ay gàtt gis nañ ne nit ñaa ngi dépensé mais loolu mooy doxal économie loolu moo ñàkk xam-xam gi ma la wax nit mënoo nekk spécialiste ci lépp wàllu koom day xam-xamu boppam ay nit di ko jàng ba nekk ci ay docteur comme ay nit ni jàngee ci wàllu wér-gu-yaram ba nekk docteur comme ay nit ni ñuy jàng ci wàllu théologie ba nekk docteur ci wàllu islam kenn ku nekk nag bàyyee ko ak la mu xam boo bañ am problème ñun li ñu def ci xam-xam bu leer nangi lañ ko teg te xam-xam yooyu yëpp nag lañuy ñuy boole ka nga xam ne moo dégg diine dañ koy bàyyee diine muy waxtaan ci diine ka nga xam ne xam-xam màcc na ci wàllu docteur professeur lamin Gueye nekkoon recteur université nekkoon recteur université Bambey nekkoon recteur université Saint-Louis di taalibeb sëriñ bi far sax di taalibeb sëñ Mountakha ci boppam kenn gënu ko xariñ ci wàllu kër docteur wérgu yaram ñu jël ko jox ko unité d'alerte ne ko saytu ñu wérgu yaram màggal gi noonu lañ jëlee yeneen docteur yoo xam ne seen xam-xam ci wàllu koom ñu saytu leen ñu koomu màggal gi ni nii la waaye boo bëggee na yow dañ man xam naa lépp loolu da ngay juum man ngaa xam lii waaye nag bàyyil sa moroom xam leneen te la ma xam boo ko ci dëkkee rek dangay indi jaxase da ngay da ngay indi problème kon pour si sa question li ñu def am na fu ñu ko teg fu ñu ko teg mooy lan dañoo soxla xayma màggal gi nu mu toll ci wàllu zahir ngir ñu man koo waajal ba xam nañ ci war a indi naka lay toll lenaan léegi bu ñu defutoon xayma yi 2011 màggal du nekk jour yi ba ñu defee xayma en 2011 ci la nit gëj a taxaw ci rajo wala gi télévision ne magal Touba yàqum koom la déggatuñu ko ci la état Sénégal xam ne jouru magal Touba gi dana ko indil koom moo xamante ne bii bu ko defee jour férié amul loo xam nu mu ci perte la ndax bu ko deful jour férié kenn du liggéey mi ni ne ñaan permission dem te màggal ci boppam bés bi lim ci récupéré ci ay taxes kenn xamul nu mu toll. taxes yi de quarante milliards de taxes. dañ ko ah, ci màggal Tuubaa lan bi boo xam ne férié ba pare état bi di ci récolté. lu toll noonu ci risque ah, ma man man booy déglu samay discours. Euh, may wax ne du may dogu ci ne lii fii rek la am xam nga loolu daa adduna dafa xaw a yaatu wax naa léegi ne kenn xamul dara man jàpp naa ne lu lu néew li nga xam bëriwul moo tax même su may wax yu mel noonu sax même su ma tëj ay wax. dama naan ci li ma xam hmm. ndax keneen mën naa xam leneen donc loolu mooy ak mandute du donc moo tax yooyu moom duma ci bëgg di du ci bëgg dugg mais li wér moo di ne màggal gi bu ñu defutoon loola kenn du ko def jour yi parce que même bi nga def loi bi ci motif yi nga xamante ne bii moom nañu sukkandiku ba indi loi bi loolu lépp nañ ko ci indiwaat jour bi nga xam ne ñu ngi koy voté à l'Assemblée nationale euh, ay député dañu maroon woo di ma laaj ay argument pour bu ñuy développer ak di wax naka ñoom lañ war a lañ war a nga xam ne étude boobu moom laa leen jox di leen ko di di leen ko résumer ba ñoom bu ñu demee jël parole taxaw ci taxaw ci assemblée nationale dinañ xam yan argument la ñuy indi évidemment yooyu ay député ay murid lañu suñu ay mbokki murid lañu maa ngi fàttali ku mel ne Aïda Mbodj ku ci ku ci sonnoon la wana ma ay yoonu yoonu yoonu kilifa moo ko waxoon wol Cheikh Abdou ngeen waxtaan ci. Mm-hmm. daan nekk na biir assemblée national di woote. di laaj di argumenté di ci dem donc te même booba sax moom bokkul ci pouvoir bi nga xam ne kon nekkutoon aussi loi boo xam ne loi politique la pouvoir ak opposition ñëpp àndoon maasé euh, voté ko kon yooyu mooy mooy li am solo donc loolu di fierté boo xamante ne bii liggéeyu sëñ Bass la ci màggal gi euh, kon ñëpp aussi war ko cee sant gis nga nag combat boobu moom la ñuy continuer parce que dafa am dafa am euh, dafa am loo xam ne tey waruñu ko taxaw laaj te teguñu ko fenn tey amuñu sañ-sañu ne nañ defar assainissement Touba rek ne Thiel la amuñu sañ-sañu ne nañ jokk ndoxum Touba ne Thiel la da nga koy argumenté ci xam-xam nga koy teg ndax ñi ngay waxal itam ay borom xam lañu ci ay programme lañuy dox kon boo leen di wax ci ak nit nga mën a waxee ak ñoom ci nga leen mën a convaincre mais tey jii bépp bu ak fu ma nekk ci monde bi même état Sénégal loolu ñu ne kat. fii juróom benn million nit dafay daje kon nangam ji mënu fee ñàkk fa saasa dañ koy signé xam ne di mëntu ñàkk kon loolu ci boobu esprit lañu koy defee kon ñi nga xamante am nañ yeneen ne xalaat su ma sañoon ñu bàyyi yooyu ñu xam ne màggal Tuuba dépassé na considération yi nga xam ne ñoom ci foofu lañu ñu toll yooyu ay tolluwaay la fii ak at kenn du fa toll daaw tolluñ fa woon ren ña nga fa fii ak at kenn du fa toll te lii depuis sëriñ bi ba nga ni ñu ngi ci te day nay dem moo ëpp lépp ñun ñëpp moo ëpp ñun ñëpp dañ ciy nekk bu jógee fi sunu njaboot ak sunuy sët ak continuer di ci nekk kon nañ ko nañ ko préserver xam ne xam ne ñi ciy liggéey xam nañu li ñuy def lu mu doon moo tax ñuy sonn guddi ak bëccëg sëñ bi ñu gis ne màggal gi dafa bari ay dimension dimension sociale dimension religieuse ak yeneen yeneen dimension ñu gis ne dimension sociale bi màggal Tuubaa événement la boo xamante ni euh, tey mën ngaa gis ñaar ñoo xamante ni dañoo bokk ci ay kuréel duñ tuddante sax mën a dajee Tuubaa ci kanamu sëriñ bi te buñ fa dajee daañu daañu waxtaan nga gis tamit ñoo xamante ni euh, dañoo dañoo nekk ci ci ci diine gi peut-être bokkuñu ay gis-gis ñu mën a daje Tuubaa ci ay jotaay loolu naka ngeen ko liggéeyee ba ba réussir ko ci màggal Touba gi. waaw xam nga xam nga dimension màggal gi dafa dafa bari mm-hmm. euh, ñu ngi wax léegi dimension spirituelle bi. Mm-hmm. mooy jàmm yàlla gi. Euh, loolu benn ruugi day day day dugg foofu. Mm-hmm. kon te dimension man jàpp naa ne mooy dimension bi cëpp doole. am na dimension festif. mooy dimension bernde rey nag yeeg yu mel noonu dënale bi boobu aussi dimension boobu ci am solo la ndax sëñ bi da ko cee defoon tudd ko tudd sax ne nag ci ginaar ba ci gileem ci ni ko mag ñi nettalee kon loolu dimension bu ci bu ci am solo la mu dikk ci dimension sociale boobu nga wax mais boobu dañ koy def dañ koy def benn étude d'impact étude d'impact boobu 2011 parce que ni ñi dañuy dañuy fàtte mais defuñu rek impact ci wàllu ci wàllu koom. Mm-hmm. déedéet def impact ci wàllu ci wàllu koom def impact mooy jeexit. Mm-hmm. def jeexit ci wàllu euh, social. def jeexit ci wàllu diine. jeexit ci wàllu diine boobu sëñ sàmm Bousso nañ ko dénkoon moo ko defoon même téere ba moom ren euh, imprimé na ko ba disponible encore ci marché bi pour ñi nga xam ne. aajo woon nañu ko euh, li nga xam ne mooy euh, mooy dimension boobu gis nañ ni am na ñoo xamante ne bi juboo nañ Touba am na ñoo xam ne juboo nañ fa ndax dañu bokk lépp du ñu tuddante ñëw daja fa ñu defal leen benn tànt boo xam ne fa la ñëpp di di di jëfandikoo ñu daje ñu daje fa ndékki daje fa añ daje fa reer ànd ak seen nawle dañuy xam ne fii ñàkk a nuyoo amu fi place foofee la yëfe déparé pour wax la importance bi nga xam ne am na ko bu doon bu bu bu doon ñooñu fa juboo dong benn yoon boobu rek la day mel loolu doy na sëkk ngir ñu defoon ko euh, ñu gis ne xeet yi nga xam ne ñooy daje euh, muy wolof muy tukulóor muy séeréer muy njaago muy bépp xeet ci Sénégal ñëpp fay daje te ñu fa dajee itam kenn du xam kii ban xeet la bokk kenn du en tout cas kenn du wan sa morom ban xeet la bokk ñëpp rek dañuy dikk rek ngir jëmmi sëriñ bi sant na ko yàlla ñu gis ne ci wàllu politique képp koo xam ne bokk nga ci parti politique ak bu mën a doon danañ fa daje te buñ fa dajee itam kenn du indi sa couleur politique ci màggal gi kenn ku nekk da dikk rek sant la sëñ bi yàlla nga xam ne ko day mel ne bu ñu bu ñu xasee dugg si Euh, li nga xam ne moo ñu wutale muy différence yi nga xam ne am na suñ diggante yooyu dafay euh, dafay jeex loolu nag mooy mooy boole xol yi loolu nag moo ñuy jubale moo indi li ñu woowee cohésion sociale loolu aussi mooy indi ak dal ci biir réew mi loolu moo tax ba Sénégal am na loolu mënu fee xew ndax fi ñu dajee day bari te li ñuy bokk te mënuñu koo séddoo dafa bari moo tax même bu amee ak réeroo bu mu doxee tuuti rek dana am lu ñu boole loo xamante ne bii réeroo ga faw mu jeex wala lañ bokk duñ ko mën a rafetal kon màggal gi boobu taxawaay la am ci la am ci réew mi nga xam ne kon bari na réew ay réew yoo xam tey am nañ ay jafe-jafe muñ amoon bisu mel ne bisu màggal Tuubaa gii foo naa jafe-jafe jeex même wute yi nga xam ne dañ koy am sax ci diine ci euh, ci mazhab yi euh, ak ci ak yenn gis-gis yi euh, association islamique yi nañu ñëw confrérie yi nga xam ne bokk ci nañu dikk buñ dikkee ci conférence bi kenn ko dañ lay jox kàddu nga exprimer mu wax la nga xam ne mooy sa mooy sa pas-pas la nga xam ne mooy sa gëm-gëm la nga xam ne mooy sa mooy sa gis-gis loolu di tolérance boo xam ne aussi dafay indi aw day wane aw yoon boo xam ne mooy li nga xam ne ñun noonu la war a dëkki kenn ku nekk war ngaa mën a am sa gis-gis te du yàq dara ci sunu jëflante nañ ko war a rafetale te ku dem gësuñ Muntaxa ñi nga xam tey jii moo fi nekkal Cheikh Serigne Touba ak ña nga xam ne ñoom ñoo ko jiitu woon boo dikkee rek da nga xamante ne bii la la na nga mel ak la nga gëm ak la nga indaale bu dee pas-pasu sel di di di di lislaam rek loolu moom dañ la koy nangul kon cohésion sociale bi nga xam ne màggal dana ko indi ci réew mi loolu amul njëg amul prix loolu rek jar na sax ñu defoon ko jour férié bis bis boo xam ne Sénégal yëpp dañuy maase daje te étude bi gën na ne jour màggal daanaka boo jëlee Sénégal vingt 27 pour cent réew mi dañuy daje Touba. te 27 pour cent yooyu mooy vingt 27 pour cent kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi kon foofu foog naa ne jafe-jafe bu mu a doon. man na faa amee mën na amee saafara am na yeneen dimension dimension diplomatique gis nga ñi nga xam ne ñooy ñooy dikk jóge ci biti réew ni ñu bare waaye tamit gis nga code diplomatique bi gis nga ren la fa daje daanaka benn ambassadeur bu rek Sénégal desut réew yëpp ñoo ñoo dikk présenté wu loolu aussi di loo xam ne dafay dafa yokku euh, maanaam Sénégal ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci bitti dafay dafay defar deram ndax ñoom bu ñu dikkee ay émissaire lañu buñ delloo dañu nettali ne ah Sénégal de gis nañ fa loo xam nangam ak nangam am na boroom xam-xam ñu rëy ñii ñu ngi jógee Californie ñii ñu ngi jógee Abu Dhabi ñii fenn fu ne ci àdduna si lañ jógee ku ci ne bi ñuy nuyu suñu muntaxaa da ngaa fóon loxom ku ci ne bu koy nuyu ñaari loxo ngoo ko jox ku ci ne jox nga ko respect boo xam ne boo delloo boo fonk du nit ku ñuul da nga fonk nit ku ñuul. boo foog ñu boo xamante Sénégal am nañu am nañu ñu ci bari keroog lañ gëj a njëkk a teg seen tànk ci biir réew mi te yooyu buñ delloo tey ay junniy nit ñoo leen di topp am na ñoo xam ay millions nit lañ am ci ay followers. Mm. ñu di leen topp ci réseaux sociaux yi. commencé nañoo bind ki sëñ Touba di leeral di bind ki Sénégal di leeral. kon loolu aussi amul prix même ci suñu derub réew. Mm. nga xam ne kon aussi tuuba loolu lay jëriñ réew mi ci ci fànn googu. muy Tawfekh jugee kenn xamul foo yem. abonneel gaaw fii ci Tawfekh production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot si sens. kon dafa mel ne Tawfekh Sëriñ Tuubaa rek am solo.